j'ai jaajëfatee sama gars sama Mister mr chegle Brooklyn New York Ousmane Sonko en danger de mort gars waxon na len Ousmane Sonko bio mu très attention dañoo gis jomay Basirou jomay mu avertir mu Ousmane Sonko Doudou Ka ñom Doudou Ka

jomaay génn man fan yëpp maa ngi doon wax jomaay lan moo tax ñoom Ousmane Sonko ñu ne tekk tekkaaral rek bàyyi ñoom Macky Sall ñu jàpp nit ñi di tëj tëj Guy Marius Sagna di def lu leen neex waaye ku bëgg a dee wequ jomaay dafa génn mu ne Sonko gouvernement Macky Sall yàgg na ko bëgg a bu leen fàtte bañ ko fi woowee ne dafay wuyu ci gendarmerie ci affaire Adji Sarr jomaay nee na bu fa demoon dañ koy posone bu leen fàtte. affaire Adji Sarr bi tamit ba ñu immunité ñu ne ko da ngay wuyu Ousmane Sonko ne du wuyu ji laqatu kërëm xalé yi nekk fa militaire yi wër ko fofu tamit jomay dafa Ousmane Sonko bu bañé mu yoni police wala armée ñu dem te bu ñuy dem diko jël dañuy tirer dañ koy ray ban mo ci dess bi ci dess moy bu démb bi ndaysan bu barki démb bi bi nga xamné ne Doudou Ka ak ay élément surtout amna ci ah defe naa Kala sant moom tamit dëkk yembal ñu ngi ko ciy tudd waa Walfadjri sax tuddu nañ ko ba joxe turum moy waju ju gi rek gennoon di wax nan Ousmane Sonko violeur ñu ne dañ ko bëgg ray tay tamit bo démé jotna TV Gisna naa seen waa ji mu wax tamit li jumaay wax mu wax ko ci vidéo kon fi mu nekk ah waa tamit gëm nañ lool jotna ñu wone Ousmane Sonko quand il était extirpé n'est-ce pas de cette réunion avec son cortège qui a été attaqué n'est-ce pas, cortège qui avait en, sa tête une voiture de police, mais ça n'a pas euh, découragé, ça n'a pas empêché les jeunes de Doudouka d'insulter nous sago Ousmane Sonko top pourquoi est-ce que ça nous ay parce que dafa am na benn Ousmane Sonko une voiture qui a été caillassée madame dañu jël ay ko ko bi Euh, ma dégg benn nit naan violeur violeur ñuy saaga Ousmane Sonko maanaam di ko wax nii yow siifkat nag siifkat nga kon ñooñu bu ñu amoon pexe dañuy rey Ousmane Sonko loolu la Jotna TV wane. léegi nag man Mister Shake wax naa leen saa yu ma commencé di def samay live am na lu ma xam ñaari semaine ñi nii bés bu nekk ma def live gars yi tey sax mën ngeen ma kojaat en cinq heures. heure Sénégal bu soobee yàlla dinaa defaat beneen live ñu wax ci lii yàgg naa leen avertir ne leen Ousmane Sonko fii ak 2024 buñ ko reyul dina ma jaaxal buñ ko jéemul tëj buñ ko jéem a tëj parce que buñ ko tëjee xale yi génn mais buñ ko rayul dina ma jaaxal gis nga lii Cheikh Bara Ndiaye wax Cheikh Bara Ndiaye nee na Macky sàll dafa ndoroon saraxe Doudou maanaam dafa yóbbu dafa yónni ñoom Doudou Ka ci ni mu waxee daal Doudouka bu fekkone ne dañu rey Sonko après Doudouka les japp ne ko rap ci bi ñu def mais man ne 2024 ñu dinañu dé ngir Macky Sall am nguur moko jaral lo mais en fin de compte leen il faut qu'on se radicalise lan motax commencé di def ay live sama live nekkuma fa di layam layami layam layami nekkuma fa di lemm lemmal sama live dama ne Macky Sall il faut que ñu jambar la mom il faut que ñu jambar loog mom il faut ngeen wax ko mortal combat il faut ngeen wax ko bu Sonko maxal Macky Sall da ngay dee ñun bëggu ñu rey Macky Sall bëggu ñu ray Sonko parce que loolu day taal dëkk bi waye ñom bu fekkee ne fu ñu ils sont en train de comploter ils sont en train d'ourdir des plans ténébreux pour se débarrasser de la compétition Sonko parce que ñom ñu leen jaaxal xam nañ ne Casamance mënuñu ko gagné xam nañ ne élection municipale Dakar mënuñu ko gagné mënuñu gagné Thiès Macky Sall fi la bëgg jaaree pour wone ni Sénégalais dañ ko bëgg ba léegi ndax Ousmane Sonko moko ko waxoon nee euh, Macky Sall bu gagné euh, élection euh, maire loolu mooy wane loolu dafay wane ne xëy ci boppam dafa bëgg fay def 2024 mais loolu sax Ousmane Sonko war ko woon wax ndax Macky Sall dafa jàpp ne bu jàppee bu gañee élection yi dafay def troisième mandat léegi nguur li mu ko jaral iñaan soxor taal Sénégal taal Sénégal du dara ci Macky Sall mais nag en fin de compte man damay sant yàlla ba ma commencé yuuxu ba léegi di wax ana Sonko lu tax génnul parce que Macky Sall mooy nit koo xam ne boo toggee rek tekk tekkaaral dafa naan tàppet nga commencé jàpp si euh, kilifa dugal ci kaso bi jàpp euh, euh, Simon dugal ci kaso bi waxatuñu dara mu jàpp kan la jàppati Guy Marius Sagna mais Guy Marius Sagna li ñu génn ne dañuy marche moo tax mu daw daal ko jàpp man nag dama ne ñun dañu war maytuñ ko may dara man d'accord ma gàtt sa gàtt sa gàtt sa gàtt sa mooy dañ lay dóor nga fayu ñun waratuñu xaar ñuy dóor li jomaay def laa yàgg wax nañ ko war a dañ ko def jomaay génn mu duut leen baaraam ne ñun da ngeen bëgg a rey Sonko Ousmane Tounkara génn da ngeen bëgg rey Sonko il ñu wax leen comme ça ñu tiit ñu tiit Ousmane Sonko nee na leen Ousmane Tounkara nee leen boo leen laale Sonko mooy dëkk bi day takk daf ñu ko war a jaral ñun Macky Sall bu fekkee ne moom dafa pare pour tayle bakkanam taal Sénégal ñun tamit dañ koy wax ne pare nañu bu dee da ngay jënd say um, euh, ay oto char de combat wala ay voiture blindée nga jël ay nervi dugal leen ci police bi jox leen ay gànnaay ngir ñu rey rey ñu ñun tamit dañ lay wax ni ñun pare nañu pour joxe suñu bakkan waaye Macky Sall jeexal nga te am na nu muy demee doo eggali. 2021 ça ou un sax wala 2022 waxtuma la 2024. Sall la ragal il faut que nous bolé ci wax ko ne sa pas parce que duñu tok ñu rey doom Sénégal yeen seen ñu doom di rëcc ñu wax ak wa APR di leen comme man ni def sama live nous ñu ñuy ragal Macky il faut que ñu wax ko parce que jam moy traître. jàmm yow nit ki ñu jël suñu réew jox la mais xoolal Pape Alé li mu wane ci ci ci géej suuf géej gi nu mu ñaawee man mënu ma ko seetaan li ngeen ci def yëpp jàmm moom mooy jël jàpp di mattu naan xale yi dëkk bi li mu nekk démocratie moo tax le huit mars ñu bëri deewuñu waaye bu doon beneen dëkk dina am dee yu bëri waaye li fi amoon dootu fi amaan mer di ñu tëkku vraiment Macky Sall sanguinaire la. xam nga ñun nag dañ koy wax ne man mënoon ñu nelawal man yàgg naa leen wax ne man ñii mënuñu ma nelawal lii ñoom joomaay wax man xam naa ko bu yàgg te ñaari semaine ngi nii ma koy yuuxu waaye nag kontaan naa ba nga xamee ne ñoom Ousmane Tounkara ñoom ñëpp léegi xam nañ ne mag Sall du nit koo xam ne dangay toog naan ko yaa ngi ñuy noot yaa ngi def lii yaa ngi def la moom loolu da koy jox doole mag Sall amatul ñuy négocier ak moom ndax lu lépp lu am mu dem jaar sëñ mu taxaa dem def lu muy def amatul ñu li négocier moom il faut que wax ko ne ñun gat jàmbaar loo la ñuy def troisième mandat dok fi defee élection yi doko ko Ousmane Sonko néna na day delluwaat Ziguinchor bu mu ragal bu mu fomb na dem wané na Dolem Casamance wané na dooleem Casamance yeen bo len amone jom di ngén bay complot ndax complot moo yëngël sen nguur Macky Sall bo amone jom te du féké bu tukkee rek xam leen ne lu muy euh, lu muy nas ñom ñëpp ñu dem nga bu Sonko ñu né ah ñun suñu nekk ci affaire politique la

maanaam nit ñi ñu ngi ubbi seen bët bu ñu bëggee Ousmane Sonko dund léegi Macky Sall dina xalaataat bu baax waaye nag bu ñu nangu mu nelawaatal ñu yeneen juróom benn weer ba nit ñi fàtte mu génnewaat beneen beneen beneen plan ngir faagaagal Sonko nee naa leen fii ba 2024 ñu bëri dinañ ko fekkee ñu bëri dinañ dee ci accident yi Covid bi dina rey ñu bëri ñu ci ciy di di jaale Joseph Koto ñu ngi ciy profité di jaale mbay Sapar Sapar gars yi Deflen attention 2024 yalla qui ko que mais ñu bari duñ que mais ñun ñu fait ñu baña lañu parce que ñun il faut que ñu wax dëgg bi Macky Sall bo bañé ci président Haïti wala ñu comme Alpha Condé bio nga jël say dem like partage, partager abonné vous bu ci côté 5 heures heure Sénégal live merci merci merci beaucoup à tout à l'heure